honorable xam nga ne fan yu wessu dekk bi traversé na ay moment yu difficile ci walum problème bo xamanteni ñaari Sénégal yu jotee ci diganté Ousmane Sonko ak Sarr bo réew mi jaxaso won bo am ñu si jot ñak seen bakan tay ji lool yépp nga xamanteni wow, gis nga ko mo xam bi ban jangat nga si def. waaw jangat bi ma si def moy rafet mako bakkan ci si dee euh, tey wax ni man bi ma njëkkee yëg ni Ousmane Sonko dañ ko jin viol ku dee sa bamel ha hmm. man gëwma ko won man li ciow li bari bari bari bari bari bari bari ba niñu arrêté Ousmane Sonko yépp man gëwma ko won bu ko yobbo section de recherche gëwma ko won mais bi Adji Sarr waxee hmm. laa la nak problème amna mais ñom Sonko bañ ko jiiñee dafa tepp attaqué président Macky Sall hmm. daal na Macky Sall momu complo té dama xam Ousmane Sonko tok na sama kër sama canapé bi fi sa kër fi bok hmm. sama jabar ji ñoo bok fuñ dëkk Casamance sonko toog na sama canapé bi lolu taxon na jàppoon na ko ci ndax bi sama dom ji gaañoo ma ak moom tok toog assemblée bi ma bi ma ko yëgalee ma départ ñew dama ñew tok rek même pas une heure temps avant malik gakul ñew Ousmane Sonko ñew nek ak man lu yag defal ma war ma ci yalla ma naw ko ci lolu jàppoon ko ci japp ko ci lolu te ba legi ma ma ngi téye ci lolu mais lima metti ci mom moy moy lima la sank nit kenn du ko toroxal te togn baxut usman Sonko dafa ñew nañu assemblée nationale dañuy jox député yi 10 millions ñu seddo man li fi ciow lu reuy te wallahi azim loolu dara amu ci usman Sonko ñew japp Mamour Diallo andi ko 94 milliards te lolu dara amu ci usman Sonko ñew andi wat fi yenen wax di sosol sosol nit ñi man bi problème bi amé dañ ma téla danga fu ne ma bu ci dugg bu ci wax man leen tamit même lu moy politique politique politique politique sumay wax damay wax luma xam mhm. ndax damay baña togn tooñ doomu man duma togn du musuma fàttali ko fu ma nit man duma togn tooñ man ndongal Serigne ci laa param la màggee mom rek la xam ñent doomi goor la mom la ko tuddi té la tok Serigne la tudd rak bu tudd Serigne rak koku amna <laughs> rak bu tudd Serigne man man Serigne Saliou rek laa xam du tooj mais Ousmane Sonko dafa mën a sos mën a yàq der président Macky Sall bi moo ma complot te maa leen di waat ci yàlla ni Macky Sall bu complot Ousmane Sonko lu toll ni tarafatal ay na ni du laal suuf tamit état la yor Macky Sall fi mu jaar ba egsi fi mu jaar ku yàlla bind jamono ji Sénégal jaaroo yàlla ko jagleel loolu nañ ko ko nangul bëgg yow lu bon lu nekk jël xëpp ko Ousmane Sonko yow xëpp ko président Macky Sall bu jeexee nga saaga président président Macky Sall dem nga ni ba ma ko sax président Macky Sall laa koy wax ndax soxor ni ñaan bañ président Macky Sall yàlla nag bu gasee ngay suul muy gas ngay suul moom bu yàggee yàlla dana gas suul la continuer gasam dara la mënul président Macky Sall ay sénégalais lañu d' accord réew mi d' accord Covid bi amoon na metti woon na mais ku ne xam ne ni président Macky Sall liggéey na ci réew mi yéen tamit. ñun suñu géejawaay gi bo xolé di mu xottee xar kanam gi ni ko def rek da ngay fier pour nek doomu doomu géejawaay kon donc mm-hmm. Ousmane Sonko lolu mu def wote xex ne nañ len rayante na nit ñi dé mais ana ana ané doomam est ce doom bokku na ci ana rakam est ce bokku na ci ana magam est ce bokku na ci ana mom est ce que na ana ñi dé ñom ñoy pert sen wa kër ñoy pert ba ci wa yana maar yi ñoom ñii ñëpp mouvement bobu yëpp gisoo ci kenn ku dem xex dañuy wote ba nit ñi ñew ñu rocceeku ndank daw dem seen yoon mm-hmm. problème bobu sax euh, ci ñi nga xamanteni jot nañ ñak seen bakan gis nañ fan yi dañ koy jiñante ñi ne Ousmane Sonko la wa Ousmane Sonko diko jiñ état bu Sénégal lool tamit euh, ban leral nga ci indi xam man mm-hmm. dama dem Gambie ay ay jang li ñibisi ma ngi and rek suma ben xarit rak bu ñuy wax Abdou Sar mm-hmm. mu ne ma bayil ma fek mu ne man bayil ma daw ma ko may dawal parce que man sama dawal mo gëna a ngi tok bi ñuy jéggi bag bi di ñëw ma gis ay bus ñaari bus yu jéggi yu dugg ci bac bi ñoo bokk ba ni ñu wàccee ñii ngi sol ay jean ñii ngi sol ay tërëy ñii ngi sol kenn xamul sama nopp ñu ne dañuy dem Gambie dañuy dem dañuy dem Sénégal jàppale ñu Ousmane bi ma ñëwee woo naa ay kilifa wax leen ko ñu jógee Casamance. Casamance Gambie laa leen gisee Gambie Gambie laa leen gisee Gambie. pour ñoo xeex si. Gambie laa leen gisee ñoo bokk bis bi ma ñëwee woo naa ay kilifa wax leen ko. ba ci sama xarit sama doomu ndey ab Mbow woo naa ko wax ko ko ne ko ñi ma gis ñu jóge Gambie di ñëw naruñu jàmm woo ay kilifa mën naa tudd seen tur ñu may dégg man leen jël leen seen matuwaay benn ñaareel gi. xale bi déparcel dañ na bala ko ray fitala ko lan mako ray paka ko ray ñu ko jam paka, ku ne gis na ta dañ ñewon bal euh, luñ ko door si bop bi paka ko ray ki dé ki dé ki dé kër massar bal bal ko du ko ray ki dé euh, feulé balu teug ye ya ko ra ba ngeen gis ngeen ben bal bu ñu génne ni li si armée bi police la génne wala gendarmerie ñoo ray li kon li premier li ministre de l'intérieur wax kon da nga bëgg ñu confirmer lolu dama koy confirmer lolu am tamit Ousmane Sonko mënul wax xalé yi genn leen dem leen xeex dem leen dey ñu ray xalé yi mu naan état bi ba fi may wax ak yow xana xalé nit boko doré bal di ko gis man mi nit song na ma fi ma ko bal biñ ko jappé dama gis bal bi dañu genn bal bi ci mom ta daf ma doon agressé bañu dem ci yoon mu jigu mu tu jéggalu ma jéggal ko tax dañ ko arrêté té papam sama sëriñ dafa bok ci ñuma doon ñaanal looloo tax sama jéggal ko keroog dem na ba ci sëriñ Bassirou Gueye ñaan jéggal pour mu jéggal ko yag na kon donc <laughs> ñu rey xale yi état xam nañu leen rey du enquête bee ngi dem nañu toog ba résultat ba résultat enquête bi gën Ousmane sonk mënul taal Sénégal ku dul moom mënul taal Sénégal lenn nag moo ma xaw a métti si waa APR mm-hmm. mais ni ma gisee ñuy attaque président Macky Sall ñoom ñëpp ñu ne nem. maanaam da nga ñëw daal maanaam dañoo xaw a reculer. daw ñëpp na nem daf ma métti woon. Mm-hmm. te man ñu ne ma bul wax waroo wax yëf yi métti ma. man nee naa leen man danaa wax ñu ne ma bul wax samay dëkkandoo ñu ne ma comme que si ay kilifa nee nañ la bul wax bul wax man leen danaa wax dama bëgg wax ba ñu ñëw taal sama kër ndax xam naa ni man duñu exporter sama kër <laughs> ndax jamono jooju moom fii ku fi jaaroon gis ni ma ko def xam ne doo fekk amoo fitu sax exporter naa da koy taal mais pour lan loolu yàq ay alalu jàmbur sàcc ay alalu jàmbur Ousmane Sonko bu yaakaaree ni li xewoon ni moom moo tax ndax na boppam. te billaay lii dootul amaat maa ngi lay seedeel si yàlla dootul amaat yow na ko soxla dina dem daf maa gën man man Ousmane Sonko daf maa gën man daf maa gën. daal dafa war a wuyu ji. lu dem wuyu ji yoon et puis luñ ko jiiñ moo gën a salte ci lu luñ mës a jiiñ nit si histoire Sénégal violé nit yàqtaat nit def yëfu saay-saay nit. tam fay dem di maasawu Macky Sall da koo yëg taw boo demee di maasawu di maasawu ah dóor fay ndigg ba ne fa ngalañ gàddu say kan bu sa responsabilité waaye dem topp sa bànneexu bakkan sa neex-neex ah li tax usman Ousmane ko di daw Adji Sarr xam na ko te billaay dinañ jàkkaarloo man ni ma jàkkaarlook juge bi <laughs> jàkkaarloo yoon ba egsi moom dina dem dina dem wuy ju yoon Ousmane Sonko bu demul wuy yoon kenn dootu fi dem wuy ju yoon. waaye hmm. liñ ko jiñ dafa rëy mbër yàkkataan violé saay-saay. le dossier bobu gaay ñu tambal wax naan patage bu tang la ndax gis nga biko ko juge huitième cabinet delloo ji Samba après li ci xew wax ji bari. Samba wax. Mhm. man lima xam ci mom kima gis Samba dafa tawaton avant li dem Man kon waral ay gaf sama tombé waral ay gaf man sama dossier kan la woon man bima ñëw dama fekk Samba Sall la tawat. mu téye ma fa dem faju ji hôpital joxon nañu deux fois rendez vous ñëw ñu dem mi France dafa faju ji. Mhm du Ousmane Sonko Ousmane Sonko ñom buñu ñu dara ci affaire buñu ñu mënoon a rey nit miski duñu du ñu Macky Sall palais ba duggal fa Ousmane Sonko dañu wax deugal dañu mën rek nañu génne Macky Sall palais ba duggal fa Ousmane Sonko mhm. yang nga bu yaakaaree ni nek na président Sénégal il se trompe du ko mos fon foon ñeex <laughs> d' accord yaa ngi doon ñaawlu bi nga xamanteni sa sa def nañ ko ci mbir mi manam da nga japp né ñom dañu sétane du trop. waaw xam nga ñen ñi ay tapé lañu ñen ñi xam lu ñu bëgg. Hmm. tey benn responsable AP bu dëkk Géejawaay song benn responsable rek wala ngaañu Aliou Sall rek nga gis léegi ñu commencé jël internet bi commencé wax te Aliou Sall d' accord c' est bien beau nga défendre Aliou Sall mais ñun hmm. Macky Sall la ñu wax Macky Sall bu nekkul Aliou Sall du nekk président Macky bu nekkul Aliou Sall du nekk mais booy Ousmane Sonko yi nekk si réseaux sociaux yi xoolal réseaux sociaux yi chaque jour si ban réew la ñu nekk jël téléphone di saaga. président Macky lu la neex nga wax ko te doo ko wax sa baay lu la neex nga wax ko Macky Sall mu jaar fi ko yàlla jaarale ko fi mu jaarale ba mu egsi fi mu si tey yor réew mi liggéey fu liggéey boo xamee ne soo sëriñ ñaseen yi li mu wax yàlla na fi yàgg te wér nee na ko fekkee naa e, e, Senghor fekkee naa Abdou Diouf fekkee naa Ablaye Wade waaye yow da nga maa yéem ndax barki démb la ko wax président Macky Sall kon koku xamna li president Macky Sall liggey ci rew mi kilifa diine yi xamna li president Macky Sall liggey ci ni amna na yar am na teggin am na xam-xam te man na li def ku mel nonu soko amé ñukoy attaquer guddé ak bëcëk da nga war a taxaw défendre ko man loolu la gëm te nak man reprendre rana service reprendre rana service ku ne ko ben man ni la gel ay ñi nga xamee ni ñu ñàkk solo ñi Guy Marius Sagna di nuroog mbott gémmi ñoom gu yaagoo topp télé yi Macky Sall Macky Sall tekkiwul dara bërki démboo Njaay fi doon yalwaan affaire oto ñu may ko oto mu xëyaat naan sama location benn étudiant ma koy falal am na lu mu bëggaat na dem liggéey moo gën na dem daani dooleem yi muy def yëfu ñàkk fayda yi amul sens chaque jour maa ngi koy dégg sax léeg mu toog di ma sànni xeer dinaa ñëw ci moom kooku émission spéciale laa def ci moom man ku ma attaqué ma tontu la ak koo mën a doon man mom xam nga ni mom duma ko yak kuma wax kuma ma gi ma di saña Macky Sall duma romam yow fu problème am nga xam luñu bëgg moy tar réew mi armée bi jël réew mi te lolou du fi masam fi ku falu sénégalais ñu lay fal sénégalais Macky Sall président Macky Sall lañ fal te gis nga ni ma lay wax ni suba bu ñu demaatoon élection suba suba suba barké Serigne Sallou Mbacké président door leen bop tok seen kaw du seen morom la preuve ané xolé bi mu génné rek ñom ñëpp ruux nañu bi mu génné rek ben génné la génné rek trois jours rek ñoom ñëpp ruux nañu xajul seen kaw Ousmane ko fan lay jaar koo xamee ne yow kilifa diine yi ñëpp la jéppi et bëgg fi créer ay affaire jullit ak ibaadoo yi kenn xamul ñu yor sikkim guddal sikkim di saaga nit ñi bay saaga suñuy kilifa diine man benn waaye dafa ñëw fi di ko wax ne ma diw li mu wax ci murid yi ma ne ko nañ ko duma murid day am ful man bu ma xamoon këram kar ko guddi duma ko laay def ma ne ko nag Serigne Touba lu ci waay wax noonu bu ñu sax nekk fi naan ay dañuy porté plainte ak yooyu yii ngeen di def yëpp hmm. dañ ko war a yoot ba ñu ko nipp am na kuñ ko fi defoon maa ngi fi de wooyu bañ fi waxee li mu fi dañ koo jàpp doo ko ba mun a nem suñ towar seen morom mais loolu day dem ba mujj gi mën na indi ay guerre civile si dëkk bi te Ousmane Sonko xeet googu rek ñoo ko fi ndi mais du jàll réew mi dafa am nu muy tëddee du jàll bu yeboo ñu lem seen gente toog d' accord euh, peut-être bala ñuy dugg ci actualité politique ci euh, département bu Guédiawaye gis nañ président fan yi mu génn doon def benn tournée ba mu duppee tournée économique ñu bëri sax jàpp nañ ne loolu du tournée dafa génn pour jéem a euh, xool popularité am fan la toolu ngir jéem a natt boppam boo xam ndax cofeel bi mu ngi ci askan yu am déet yow loolu tey jii ban nga avis nga ci am bon li ma ci am mooy président ku xam ne ni tournée économique la doon def ndax euh, moom investir na si biir gox yi investir na si loo xamee ni jot na mu dem xooli li mu doon investir li mu investir lan la loo lu ci baax lu manqué lu ñu war a inaugurer ak lu ñu war a dolli liggéey boobu mu doon def ci la population yi jóg wan président Macky Sall seen cofeel Macky Sall Sénégalais yàlla xam nga yàlla bu lay fal da lay préparé suñu borom bu lay jox nguur nguur yàllaa ko moom. mooy damm ci nguuram jox ko nit bu lay fal da préparer président Macky Sall yàllaa ko def ci xolu sénégalais yi te mu nekk président boo xamee ni dafa am yërmande ci sénégalais yi du tibb xaaxaam di ko def ci gémmiñu sénégalais yi génn na sénégalais yi wan ko seen cofeel ñun géejawaay ñu ngi koy wax bismillah ñëwal danañ ko namm mm-hmm. bu ñëwee ñu wan ko lu ko lu ko wanoon fii lu ko rawee ñu wanaat ko ko rek sénégalais ñoo bëgg président Macky Sall ñom nak sen soxor sen iñan sen xol bu ñuul sen bon sen ñak xalat sen ñak xam-xam mo waral ñu naan tourner politique lay def su ko nexé def tourner politique bu ko nex na ko ci def tay bo xolé tay ni té loolu dina ci ñew journaliste yi nga xam dañ ma naan sanni xër sax amul luñ ma yàqul lu ne ñu wax mako gis naa tamit ñu koy ay di yàq président lu mel ni xamee ay ay journaliste politicien man duma ku ñuy attaque ci ay presse may daw di ruux danaa leen tontu benn par benn jarul yàkkamti lii dafa lii émission bi ma leen defal mm-hmm. dama ko def pour am lu ma jot lu ma leeral lu ndaw mm-hmm. mais ñoom nañu xam ne ñoom ñi ma doon attaqué dañu toog xaar ma yaa ngi ñëw te danaa leen wax loo xamee ni am na si ñoo xam ne sax dégg naa ay candidat lañu xaw fu ñu ne candidat waaye fi duñ ci campagne ndax daa leen wax loo xamee ne ba ba ñuy dee dañuy xam ni tooñ baaxul man naam nag ci diggante bi ma jéggal leen te yàlla tax mhm. mais moom nañu xam ni man du ma ku ñu xoqatal ci ay presse ngay daw lan laay dawate ci presse dégg naa lu ne Bougazelli wasin na rek laa déggul quatre-vingt-quatorze milliards cinquante milliards foo nangam lu ne waxal nañ ma ko mhm. te dossier boo xamee ne yow xamoo li ci xew mhm. xamoo li ci xew ngay tënk rek di wax te bu ma la soppee si yoon nga daanu d'accord tey ji wàllum troisième mandat ñaari baat nii naan mun na nekk ñii naan président wax ko si yow tey ji gis nga ne président war na mun a def troisième mandat wala fii la ko yemal. bu la neexee ma jox la vidéo bi Barthélémy Dias wax. Hmm. déglu nga ko. lu mu wax. Barthélémy Dias nee na Macky Sall kenn mënu koo téye bañ a nekk candidat. léegi ñu déggee si lan. ne yoon may na ko ko Barthélémy Dias ko wax Ousmane ko wax ko mi ngi nii sama téléphone mën naa la ko tegal léegi. da tamit loolu. bi may def. meeting bi may def gannaaw suba samedi sax dinaa leen ko tegal ñoom ñëpp dégg ko. ne yoon may na ko mu nekk candidat Ousmane ko wax na ko ne article xaw ma 27. bu fekkee ni la loi n'est pas rétroactive yoon may na Macky la nekk candidat yoon ko may mu nekk candidat day nekk candidat mooy suñu candidat. dama leen di wax lu leer. Macky Sall mooy suñu candidat 2024. pour def troisième mandat. mooy suñu candidat te bu ñëwee ñu fal ko. leer dama ne la. Mm-hmm. du yëngu gis fii. Mm-hmm. jeune bu ci ñoom Ousmane Sonko ñii di ruux nga dem dee ana ñi dee tey. ñëw nañ seen kër jaale nañ leen jox nañ leen un million deux millions adama pare nañ si te ñoom seen doom yooyu dee mënul leen amal njëriñ amaana sax keneen ku waroon a yor réew mi mi ngi la ko nga juree sa doom yar ko ci farataak sunna mhm. te di ko bàyyi muy topp ñu représenté wul dara tekki dara ñu leen di xeexloo te ñoom du ñu xeexi ah seen i doom du ñu xeexi seen i jabar du ñu xeexi ñun Macky Sall mosuñoo xeexloo d'accord temps Ablaye Wade mhm. président Macky Sall ñoo wax génn leen dem xeex benn manifestation la ñu mës a fekkee muy M23. Hmm. M23 ñu ñëwaat ne dañuy organiser manifestation place de l'Obélisque Serigne Sidi Makhtar mi nga xamee ni yàlla na yàlla yokk leeram sa àjjana daal ne digal naa leen ngeen dem ngeen campagne te bàyyi xeex bi Macky Sall ne leen fu ñu ko dem campagne yi euh, Serigne Touba waxoon rek ku la tee dégg ndigal euh, euh, ku ku ku la tee dégg ndigal kenn mënu laa ñàkk ba a jaruñu hmm. mu dégg ndigal nag. yow ya jaruñu mu dem dégg ndigal dem campagne yi yàlla jox ko réew mi ñoom bu ñu bëggee réew mi dañu dem ci àll bi wëri ñëf yi du fii du Dakar Njaay gi ak top presse bi top internet yi di saaga nit ñi di wax nit ñi mais pour lan loolu yow yaa ngi saaga ko xamee ni yow wóor na kii moo gën sa ndey moo gën sa baay nga toog si internet di ko saaga ah top sa ni koy waxatee si sax live ah di wax ci n'importe quoi mais pour lan d'accord